ñun tey dañu daje fii euh, ci hôtel euh, Azalaï donc ONES ordre national des experts section fiscale bi nga xam ne nii man maa koy présider euh, pour def ay rencontre yoo xam ne nii dañu bëgg mu am au moins ñeenti yoon ci at bi donc rencontre bu ci nekk dafay am dañuy aborder benn sujet benn benn maanaam ci mbirum lempo mbirum mbirum lempo parce que xam ngeen lempo lu am njëriñ la si réew réew bu amul impôt yu doy mënul def euh, gouvernement bi état bi du mën a def yenn réalisation yi donc il faut que xaalis bi doy parce que bu doyul sunu biir dañuy obligé dem lekk ko te xam ngeen ni leb moom euh, finalement euh, ñiy ñëw sunu sët sëtaat yi ñoo ñoo koy fay ñooy gën a sonn donc nu nu mën a def rek pour recette fiscale yi bare moom dañ koy def état bi loolu lay jéem a def ci secteur bu bu jafe nag muy secteur du numérique secteur numérique dafa dafa commencé di yéeg di développer donc digital ñëpp ngi si comme am na ko expliquer léegi même suñu xale yi ak ñooñu ñu ngi si ñu ngi si digitalisation bi donc loolu mooy euh, àddina noonu la nar a demee te lu mu gën a avancé rek dafay gën a dafay gën a développé donc dañuy seet état yi suñu état yi dañuy seet nan la ñu mën a fexe ba activité boobu nga xam ni dafa jafe xayma nan la mën a def ba état bi génn si donc loolu la ñuy ñun euh, loolu la ñuy liggéey tey di si xalaat ak sax ñi nga xam ni nekkuñu fi mooy les les les GAFAM ah, ay ñoom Google ay ñoom euh, Apple ñoom ñëpp dañu bëgg xool seen activité yooyu nga xam ni ñoom euh, maanaam nekkunu fii sunu réew ñu ngi ñu ngi ñu ngi nekk si yeneen réew mais dañuy ñëw fii di def ay activités donc boo waxee numérique rek il faut nga tudd ñooñu parce que ñi fi nekk di liggéey si numérique si ñoom la ñuy la ñuy jaar ci seen ay plateforme ak seen ay kii la jaar pour liggéey te ñoom liñ si am dafa bare liñ siy gagné ci recette dafa bare recette yooyu nag lan ni il faut ñu am luñ luñ fi bàyyi comme impôt comme l'impôt comme ku liggéey da nga war a fay l'impôt noo tuuti ak noo mënti toll te ñoom dañu yàgg Euh, maanaam dañ leen yàgg kenn xalaatul woon ñu fay dara fii donc léegi nag ñëpp ngi xool état it nan la ñuy def pour ñu fay lu mu néew néew néew fii ci suñu réew ñun dañuy xool état bi yan jël na ay mesures mesures yooyu la ñuy xool est-ce que mesures yu baax la est-ce que waruñu ko xoolaat waruñu ko saytuwaat. dafa nekk benn partenaire bu am solo ci suñu programme bi ñuy déroulé muy programme tax equity nga xamante ne dafay liggéey ak. organisation de la société civile yi day liggéeyal état aussi ngir mu mu mën a am ay euh, impôt bu bu bu bari waaye tamit impôt boo xamante ne ñëpp ñi war a fay dinañ fay ngir ñu mën a financer euh, politique publique yi nga xamante ne day dem ci ci ci sénégalais yëpp waaye principalement si néew ji doole yi donc euh, ONES daf dañoo gis ne ne ONES ndax ñoom ñooy professionnel u gi ñoom ñoo ciy liggéey euh, au même titre que les autres professionnels ñoom mën nañu ci jàppale si campagne googu ñuy dérouler ngir ñu mën a euh, liggéey ak état pour gën a yokk ay recettes am ngir mu mën a financer politique yi nga xamante ne moom lay mettre en œuvre euh, pour néew ji doole ji waaye tamit ak sénégalais yëpp incha allah. ordre bi dafa kii dafa jël initiative pour organiser ay ay réunion technique yoo xam ne day day ci affaire fiscalité lay lay euh, la tegu waaw euh, pour pour at bi bu njëkk pour bu njëkk bi euh, dañ ko dañ ko dañ ko jagleel ci affaire fiscalité ci économie numérique waaw économie numérique mooy économie yoo xam ne koom-koom boo xam ne day jógee ci xarala yu bees yi ñu ñu wax technologie les nouvelles technologies technologie de de l'information et de la communication waaw loolu pourquoi ñu ñu xalaat loolu parce que dafa am solo lool parce que tey ñëpp xam nañu àdduna tey xarale yu bees yi ñun tey tey tey ci ci ci yëpp tey ñoom xarale yu bees yooyu dañ ci am wàll te day jur alal ju bëri bëri bëri bëri waaw te te alal jooju nguur bi nan na ci gis boppam parce que état yi ñëpp xam nañ ko lu ñu gën a dundee lu ñu gën a am ci seen euh, ressource financière ci ci ci fiscalité la jóge donc il faut ñu xam est-ce que ñun suñu sart yoon ak suñuy sunuy suñuy suñu lu ñu yor ci affaire fisc euh, euh, mécanisme en matière fiscale est-ce que daf ñu may tey lépp luy économie numérique jur état bi mun ci am mën ci gis boppam waaw donc euh, problème boobu la parce que tey dañu lu ñu gis mooy que niñ daan niñ daan niñ daan taxé euh, bokkul ak tey ci ci ci loo xam ne ci affaire mbirum économie numérique la parce que économie numérique euh, loo am euh, lu ko lu lu ko lu ko ñoo xam ne ñoom seen liggéey la day indi koom-koom ñoom soxlawul ñu nekk ci réew dañu nekk ci beneen réew di di di di joxe ay services ci ñu dëkk ci beneen réew loolu di leen jural alal ju bëri alors que ñii dëkk ci seen eh, eh, eh, ci réew mi état boobu moom munu ci mun na leen teg impôt wala boog mu leen teg impôt euh, nu mu waree donc loolu moo tax ñu woote ndaje bi ñu xalaat ñu xool ñun lu ñu yor ci affaire charte est-ce que may ñu état Sénégal mun a lépp loo xam ne économie numérique daf koy jur est-ce que moom dina ci gis boppam comme nu mu waree. mën nañu wax euh, état du Sénégal euh, am na lu mu ci indi lu bees am na arrêté bu bees ñu ngi ko door a jël yàggul lu ministre des de des des finance et du budget boo xam ne léegi dañu taxé euh, TVA bi pour revenu yoo xam ne. ñiy liggéey ci affaire économie numérique am na Sénégal tam yemul foofu parce que dafa bokk ci ay kuréel boo xam ne ci bitim ci réew àdduna bi yëpp ci OCDE am na accord boo xam ne ñu ngi ko dooroo euh, am léegi yàggul day boo xam ne dañu ne léegi euh, dëkk yooyu yëpp léegi dañu dañu méngoo euh, ñu ñu def ba ñu mën a taxé ñoo xam ne ñoom ñooy entreprise yu gën a mag ci àdduna bi ñoo xam ne ñoo liggéey ci économie yi ñu leen wax gafam waaw loolu yëpp yëpp suñu ko taxé dañ koy dajale séddale ko état yi voilà ci loolu la ñu nekk Sénégal donc am na ay initiative ñu mu jël jël ci fii suñu réew et puis am aussi am na si initiative yoo xam ne ci ci OCDE la ko jëlee